GM jël benn engagement. su ngeen organiser wu en coopérative. Mhm. dinaa dinaa leen jàppale ba ba ngeen am financement yi ngeen di bàyyee. dinaa dinañ leen jàppale ba ngeen am eh, eh, eh, financement bu ngeen jëndee récolte yi. Mm-hmm. dinañ aussi indi commerçant yi jënd jënd ceeb. Ah, dinañ leen di li na nga leen gaaw rapidement ngeen organiser wu en coopérative. ñun ñu ñu mën a gaaw a. waaw waaw waaw waaw waaw waaw parce que dañu wax jigéen ñi ak mooy mooy mooy si si mooy ñoo ñu nekk suñu këru stratégie mhm. mais aussi damay damay damay damay profité wu mhm. wax sénégale yi ne leen mhm. suñu jëndul ñun lii ñuy bay kenn duñ ko jëfandikoo. donc balaa ñuy xalaat naan dañuy importer. xaw ma nan dugg ñu naan lii parfumé wala lii riz bii moo gënal riz bii. ceeb bi waaw dafa ceeb de qualité. donc damay nuyu ñu fii ne leen suñu brave dame yi nga xam ne suñu brave dame yi nga xam ne ñooy bay ñooy ñooy ñooy jë ñoom ñooy stocké ñooy transformé. Ah. nañ leen jàppale ci jën donc. jàppaleen ne gouvernement bi dina leen japp donc DG maa ngi lay félicité ñoo GM Info TV